président Sonko moom justice ci boppam moo ni woon nañu ko delloo ci fichier électoral bi ñu bañal ko jox ko fiche parrainage bañal ko mu fay caution caisse de dépôt et de consignation donc ñooñu ñëpp ku nekk sa dégg nga nekk te yaakaar naa conseil constitutionnel ñi fi nekk ay njiitu yoon yu xarañ lañu yu am solo lañu war nañu mun a dogal ci lépp ku mel ni Ousmane Sonko lu tax ñu koy dàq ak keneen ak keneen ñu ngi def ay manœuvre pour wan ñu nekk que dañoo bëgg dax dàq Karim wala dañoo bëgg a dàq keneen ak keneen loolu du yoon du dëgg nañu bàyyi ñi nga xamee ne que dañu war a dem élection ñu dem élection peuple bi tànn souverainement ki nga xamee ne que moo war a falu ñun nag à titre personnel dañuy woote si suñu parti bi bu laajee ñu reporter élection yi nous nous appelons report su fekkee ne que ko laaj ñu tijji beneen dialogue su fekkee ne daf ko laaj